ginnaaw si ndigalal xalif général des mourides sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké mu jëm ci dundal koor ci anam yamu ko bëggee dal di koy santaane muy jàngum alxuraan bi waaye itamit ay kuréel jàngukatu xasida yu bàyyeekoo ci dayra daayira Hizbut Tarqiyyah ñi na a daje foofee ci résidence Cheikhul Khadim bu jàkkaarloog jumaa ju mag ji jëwriñu daayira Hizbut Tarqiyyah muy sëriñ su Diop teg na ab comité de pilotage mu saytu loolee nga xamante ne a am ci résidence ba te ñu nekk ci jamonoy mbas bii di Covid 19. jëmmi kër gi ak li ko wër yëpp mboolem ñi nga xamante ne bii dañuy ñëw ngir dundal weer wi ci fànn kooku sëriñ bi sàkku na ñu sàmmonteeg ndigal yi ndigal yi weesu wut takk masque ndigal yi weesu wut respecter gestes barrières yi distanciation yi ak it di jëfandikoo gel ci waxtu woo xamante ne bii gis na ni lu mënta ñàkk la kon loolu lépp lu ñuy def rek ci foofu lañ ko dugal. loolu nag ngir jëfe gi dafa am ñoo xamante ne bi tey jii ci wàllu état ñoo ci gën a mën a def seen loxo seen liggéey moo tax responsable moral dafa instruire comité bi ñu njëkk a dem ci sous-préfet bi nga xamante ne bii moo fi nekk état bi mu woote réunion boo xam ne dafa jëm ci mbooleem secteur yi nga xamante ne bi dañuy intervenir ci genre événement yoo xamante ne mbooloo dañ fay daje. ay coppite am na ci njàngum ren bi lu ko waral nag mooy mbas bi di coronavirus ci loolee am na ay bërëb ya ñu yeesal ci biir résidence ba ngir bañ dajaloo bi ci biir salle bi. waaw ci wàllu installation ndigal yi nga xamante ne bii responsable mbala si Youssou Diop joxe na ko mooy gannaaw biir gi ren dafa am nombre boo xamante ne bii moom la mën a contenir ci ay nit pour respecte gestes barrières yi kon dey mel ne ñi ñi daa nekk ci biir salle bi ñëpp du ci mën nekk ndax dañuy sàmmonteeg ndigal yi. waaye joxe na ndigal pour waa aménagement ñu installé benn bâche boo xam ne ci biti nga xamante ne bii lépp bépp confort boo xam ne am na ci biir saal bi rek mbaaru moom ci biti dana ko am nga xam ne non seulement dinañ ko climatiser waaye dinañ ko lal ba mu murte waaye ñi daa durus te nekk ci biir salle bi ñoom ren ci bit la ñuy nekk di durus. ci loole ñu mënul teew ci dëkk bu sell bii di Touba dañ ko mën a seetaan ci anam yu mucc ayib bu ñu sukkandikoo ki jiite comité de pilotage bile mu ñuy xamal ni teg nañ lu wóor ngir loolee mën a jàll ci àdduna wërngal këpp. waaw loolu yaakaar naa ne comme édition yi weesu rek ndax démb rek rencontre bi nga xamante ne bii sous préfet doon na ko diriger euh, waa Sonatel ñu ngi ci woon. ñoom it biñ dikkee jël nañu engagement yoo xam ne dafa jëm ci sensu rek lépp luy tax transmission en direct bi mun a nekk loo xam ne du am benn gàllankoor loolu ñoom jël nañu engagement yi te yàgg naa ne yàgg nañ ko def ñu ci am ndam kon yàgg naa ne cette fois ci day gën a yokk waaye du wàññeeku li ci am solo rek mooy foo waay mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew dana am waxtu yoo xamante ne bii day nekk en direct ci suñu chaîne Almouri TV ak bépp chaîne boo xamante ne bii bëgg nga koo jàllale yaakaar naa ne protocole bi moom jafewul daal ndax day loo xamante ne bii euh, lu dundal weeru koor la. Euh, day loo xamante ne bii it euh, lislaam moo ko tax a jóg. jëwriñu daayira isbu tarxiya di sëriñ Yuusu Jóob jël na ay matukaay yu mat sëkk ginnaaw si bu mu dajee ak ñooñee nga xamante ni ñoo fi toogal nguurub senegal muy suuf préfet de Ndaam ñu daal di gisee tënk li nga xamante ni mooy tax ñépp ñuy teew ci résidence ba daañu mën a dund koor bi ci jàmm ak salaam